gaal gi nag euh, dañ ko annoncé woon euh, semaine yële passé yàlla mooy ñu sutura ñu réussir euh, période magal du Touba boobu temps dañ fi yebbi woon gaal goo xam ne dafa yeboon à peu près huit mille tonnes d'oignons gaal gi tam tey ci suba la yegg si Dakar tey ci suba la accosté mi ngi yeb cargaison bu ñu toll donc entre sept mille et huit mille tonnes si kattanu yàlla acteurs yi fi nekk yëpp ngànk programme bi dañuy fexe ba gaal gi pare mardi mu jóge fi ci loolu euh, dañuy euh, wax nit ñi rek ni euh, ñun dañuy liggéey ci ay anam yoo xam ne ñoo ngànk économie Sénégal ni économie bi di noyee parce que màggal su amee économie bi day am geneen noyukaay gàmmu su amee économie day am beneen noyukaay loolu la ñuy accompagner pour que yi am ci Sénégal ñu koy ndamoo war a am aussi succès ci wàllu économie port autonome de Dakar ak ñi yor seen i gaal ak commerçant yi ak transporteurs yi lépp nag ci ndigalu ministre du commerce Abdou Karim Fofana ak Ansoumana Sané mooy directeur de l' agence de la régulation des marchés li ñu fi def yëpp dafa ànd ak ñoom. li gën a am solo mooy naka la ñu war a def di palette yu yebbi fii tey si suba war a yegsi ci commerçant yi loolu aussi organisation logistique la moo tax sax ngeen war a comprendre lu tax ñu koy def toujours week parce que boo bëggee palette yegg ci marché yi rapidement dañ koy def week-end camion yi jël ko. amul embouteillage ci Dakar ñu war a génn yegg si ci commerçant yi kilo soble dafa daan jar mille deux cent francs tey mi ngi jar cinq cent francs mooy résultat opération bi mooy réduction de cinquante pour cent du prix mooy résultat bi euh, saaku soble mi ngi doon jar vingt six mille francs ba vingt trois mille francs tey mi ngi ci treize mille ba seize mille francs mooy aussi résultat opération bi li mooy activité économique coordonnée lii lay am njëriñ ci wàllu économie dinañu continuer nag fii ba fin d'année parce que opération campagne importation d'oignon la gaal gi ñuy ki war a ñëw prochainement mi ngi ñu ngi koy xaar côté le 27 wala le 28 donc septembre 2023 loolu yëpp day ŋànk économie bi gën a gunge yaakaar naa ne sax le 27 mooy jour jour magal donc pardon jour gàmmu gàmmu gi nag mii lii lañ yebbi moo koy accompagner ñu gérer ko noonu ba fin d'année campagne production interne bi war a jëlaat donc euh, war a jëlaat mbir mi lii la ñu amoon lu ñuy wax maa ngi gërëm euh, ñi jàpp ci bis mbir mi ba léegi li ñu planifié woon yàlla mën na ñu ndam mooy ñu sutura ñu yegg ci ay dat yi ñu annoncé woon annoncé waat nañu tey aussi le 28 septembre beneen gaal dina fi ñëw yebbi soble soo leen ñëwee dañ ko xool incha allah jërë ngeen jëf. ñu ngi fekkee ni euh, débarquement wu soble euh, bi jógee Hollande bii di ñetteelu gaal ci ci ci fukk wala fukk ak ñaari gaal yu ñuy xaar fii ak euh, fii ak année di jeex. Euh, cargaison bi nekk à bord mi ngi mi ngi nekk juróomi junney palette euh, boo xam ne euh, juróom-ñaari junney juróom-ñaari junney tonne la yu war a wàcc fii ak altine comme neen ko xamee soble bi nag comme comme ceeb bi wala wala blé bi produit boo xam ne la dafa sensible trop ci marché bi manqué am nit ñi dañ koy yëg chaque jour moo waral importation bi mu démarré ba léegi bii moo ñetteelu gaal bi ñuy bu ñuy wàccee ñaareelu gaal bi mayoon nañu ñu fàtte bu baax a baax a baax euh, manque bi am ci marché bi bala laata màggal gi ndax produit bi ñuy wàccee nii euh, sensibilité am mooy dañ koy consommer année bi yëpp mais suñ koy consommer année bi dafa am ñaar wala ñetti période yoo ne consommation bi dafay yéeg trop te trop muy suñu jubee màggal ak gàmm ak suñuy suñuy jege su at mi di jeex léegi ñaareelu gaal bi ñu mujjee def euh, mat na fukki fan ak nangam mayoon nañu ñu fàtt bu baax euh, li marché bi doon laaj bii nag dina permettre bu baax a baax prix bi gën a wàcc tuuti jëm ci jëm ci prix bu normal bi ñu koy jaay ci année bi mais dina tax tamit euh, demande bi nga xam ne moom la marché bi am euh, fii ak gàmm ak gàmm ak gàmmuwaat ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko fàtt bu baax a baax gaal bi ci topp mi ngi war a mi ngi war a départ Hollande le 22 war a yegg si fii le dina fekk xam naa li jot a dugg ci marché bi euh, demande gàmmu gi consommé ko donc beneen bi dina enchaîner automatiquement comme ça marché bi dina xaw a stable fii semaine ak weer yi war a ñëw. waaw euh, port ak euh, société Istamco seen collaboration ëpp na fukki at plus ñuy avancé plus ñu ngi ñu ngi indi ay méthodes yu bees. daaw waxoon nañ fi fii nii méthode de déchargement yu bees mais surtout quai bi ñuy faral di choisir bi nga xam ne moom la ñu port di indi. dina tax d'abord su gaal gi ñëwee duggam gën a yomb mu jël ko en priorité bu bokk na ci ci ci point yi nga xam ne port moo koy teg ci table bi euh, mais surtout méthode de déchargement yi ñuy doublé cage palette yi li ñuy wax double double stacking day tax au lieu ñu jël ñaari palette dañuy jël léegi par ñeenti palette déchargement bi dina xaw a gën a gaaw su ngeen ko seetloo gaal bi passé mi ngi nekkoon ci 8000 tonnes euh, dina bokk ci gaal yi nga xam ne ñoo gën a diis ci ci ci ci gaal yi war a ñëw yëpp mais euh, ak nimalu port ak ni ñu aménagé quai bi ak ak euh, matériels yi ñuy jot teg ci ci ci terre-plein bi tax na ñu def ko ci ñetti fan.